inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gannaaw ba nga xamanteni ni sunu borom def na li gën ci ki nga xamanteni modi eh, di président Mamadou Yatta Say ñi ngi ni ak ki nga xamanteni ni xaritam la woon ndey gay ñi ngi lay xaar bax bax a ma di ci tiis bi nga xamanteni mo dal sunu ko wa may leen di nuyu di nuyu sénégalais yépp di balu sénégalais yépp ak di bal ñëpp ak ci wéru koor gi ah, di sante yalla nak ndax lu am rek suñu borom la ñu koy sante yalla bu baaxa baaxa baax diko di ñaanal fu mu jëm yalla na gën fu mu jógee ko wax yàlla na àjjana di noflaayam yàlla na réccu li mu doon def fii ci àdduna mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, kan moo nekkoon Mamadou Yatta parce que euh, sa xarit waaw sama frère la woon sama grand frère la woon nit ku baax. Mm-hmm. nit ku ma bëgg. ku bëgg sama famille. ku bëgg sama borom kër. daawul bëgg sax yu bari yu may jàppale ma di ko génnee. di ko wax. Yatta Saay xew xewli sama kër muy sama combat jëkkër muy naqar muy bànneex ay ndox. xaalis. ñu bari gis nañ sax ma dugaloon ko dugalaat naa ko démb. man daf ma daan woo sax ni ma waxal ma Aquaterra doonu ma ko mën a wax. su ma ko su ma ko waxee day reetaan ba sonn. kaay dajji ma Cheikh Yatta Saay di sama rakku jëkkër. Cheikh mi doon doomam. sama rakku jëkkër la ndax eh, sama jarbaatu jëkkër la ndax yaayam ak papa ñoo bokk benn ndey muy ami Collé ma leen di jaale ñoom ñëpp di jaale Omoro di jaale famille bi yëpp di jaale ñaari soxnaam yëpp Ah, ñoom daado maa ngi leen di jaale di ko jaale njaboot gi yëpp ak euh, taawam bu góor bi di wax yàlla bu soxlaa keneen ku soxla da ngay ñàkk. nga jàng ci moom parce que témoignage yi ñu jot démb yëpp ci statut yi via les nit ku baax lañ xamoon ci moom nit ku yaatu nit ku doon boole nit ku doon dajale. waaw man moom du ma bàyyi ba nit ki dee may wax baaxam mbaaxam dama koy commencé wax ci àdduna. Mhm. te man yàgg naa ko wax man. sénégalais dañu war a bàyyi bu nit dee ñu soog a wax mbaaxam. Mhm. nit buy def lu baax dañ koy wax ca ba muy dund. Mhm. mais sénégalais nag boo dee ñu commencé di la dugal statut di wax sa mbaax mbaax. Mhm. te bi ngay dund def defuñu ko man loolu laa contre nit ku baax la. nit ku baax la ci bi muy dund. ci bi muy dund dafa mën social. day ñëw léegi léegi combat papa bi kañ la mën a ko des na quelques semaine mu ne ma woo ma semaine bii di ñëw ma woo ko semaine bii di ñëw. yëkkati xaalis su bari jox ma. jël ay ni ma bul filmer bu mu jàll ci mhm. bu ko bu ko dugal stade barke alxuraan billaahi wallaahi watallaahi bu ma ci waree benn baat yàlla bu ma barke Serigne Bara Mbacke man Ndeye Gueye man ku ma xam xam ma ne man ku ma defalul dara du ma la waxal dara mhm. rus naa ko sama ngor mayu ma ko mhm. mais kenn kenn kenn nekkul woon Mamadou Yatassay social la doon lay def boolewul dara ak wax. kon nitu sutura la woon. waaw bari na sutura trop. Mhm. yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. Mhm. yal ajjana àjjana dina fulaayam. lan nga jàng ci moom ci maanaam période bi nga xamante ni xamante ngeen ba ni mu génne àdduna. non man bi ma ko xamee léegi ëpp na sept mhm. waaw man nag maa ko gëj gis euh, ci. Euh, kañ lañ gëj a gisee Italie lañ mujj a mhm. Italie ci Waly Seck bi mhm. ci buntu hôtel bi mhm. la ñu gisante mu yëkkati mu jox Cheikh Yatta mi xaalis bari ni joxal ma sama sœur waaw kon maa ngi sant yàlla baax a baax baax sama waji ji mooy préparé ñëw hmm? dafa mel ni faramaaren bay waa ji ñëw de dafa mel ni mooy waajje su ma gis su ma juumul waaw Ngoori ñu lay ziar waaw leen di ziar yéen ñëpp euh, di leen nuyu di wax Euh, mu am lu mu yëkëti jox ñu ne ku ci am ku jeune bu ñëw ben jeune bu nekk ma roof la solution pour nga tekki loolu lañ wax man mi tamit dama daan def suma ñëwé ci si sesi wala fenen, même boobu mi na guñ ma suma ko bipé na ko président man de ma ngi fi mais euh, duggaguma day wo gaay ne leen mi ngi ci suuf arrêté leen li ngeen def mu dugg ba pare ben bis nak ci mbolo mu euh, mu def luma marqué mu woma ne ma ndax fi yépp gis nga fi ben influenceur buy dugg ak genn mané ne ko dédé mu ne ma parce que dama la xawal nga nek nitu deug motax ma bàyyi la mhm. man buguma nit ko xamni ne da ngay ñew ci man di attaquer kenen di si wax lu ñaaw wala dara mhm. man dama bëgg nit kuy wax wax bu rafet mhm. lool mom lool la la jappé après ñu nek bo ba légui wax deug yalla tamit yata say mi tay su fekkonte ne bax rek moy tax nit du dee yata say du dé parce que ku nek ku nek fi rek xam kenn ku ci nekk boo wéetee mun nga jàpp sa xel loo leen mës a seqalante mu faj ko. Mhm. ba pare Mamadou Yatassay fajkatu aajo dëgg la. pire fajkatu aaja. Mhm. parce que mun nañ wax tey ni bokk na ci doktooru aajo yi fii ci réew mi parce que euh, Mamadou Yatassay moo nekk nit ko xam ne soo amee sa soxla mu faj ko. Mhm. soo amee sa soxlay nit ko jaaxle tamit bu ñëwee mu faj ko xàmmeewul kii xàmmeewul kële loolu daal gisoon naa ko ci moom soo ko woowee mu jël soo ko waxee soxla man mii daf ma daan woo bu ma woowee woo keneen kii mooy euh, te moom mooy seul personne bu jël PDG boo xam ne ay trente trente six ans la am trent six ans kooku lay woo ne ko envoyé Jimbori nangam nangam barke rasulaay loolu daal gis naa mu def ko mu nekk nit ku baax démb bi ma ko yëgee ba léegi dama am problème parce que dama xamni yalla rek ay bour ndegete yalla mom xàmmeewul ki xàmmeewul So parce que tay so mbolo mi ko dar nga gis garde corps yek ñoñu ñep nga gis am nañu len naxari si ngeen wara xamni yalla rek mo sañ ci nitam lo xamni kenn mënu ci dara nak euh preuve la bo xamni kenn ku ci nek daf ci wara xol xool ci yalla parce que yalla wané nañu bor bu nek wané nañu bopam bor bu nek ñun tamit nañu war a dañoo war a xool nu boor boor bim boor bim ñuy wanee boppam ñu gën cee kii gën a gëm yàlla daal wax dëgg yàlla yéen tamit maa ngi leen di gërëm bu baax waaw jërëjëf